mën a retenir bi moom mooy bi ñu xoolee euh, wax dëgg yàlla euh, daanaka ñu ngi respecté prix yi kenn rek laa ci gisoon euh, ci benn ki nga xamante ne ci wàllum dosette bi gis nañ ni prix bi muy appliqué du prix bi ñu ko diggal wax nañu nag moom du jaay par sachet day jaay sio bi waaye ñun bu ñu ko calculer bu fekkente ne dañ koy jaay par sachet gis nañ ni prix yi respecté waaye sinon yeneen yi ñu jot a visité ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi appliqué prix yi waaye tamit di rafetlu ni affichage bi ndax balaa ngaa wax respect des prix il faut mu am affichage ndax consommateur bu ñëwee gis ni li ñu affiché du loolu nga ko jaay ci lay mën am argument pour mën a euh, yob yóbbu la fi nga xamante ne yoon mais bu fekkente ne amul affichage day nekk werante rek seen diggante donc euh, di encourager ñëpp rek di wax ni ministère euh, lii moom liggéey la buy continuer ndax service de contrôle yi moom loolu c'est leur travail quotidien waaw mais dinañ ci boole tamit sensibilisation ak aussi di ñaax ñepp rek sénégalais bu ci nekk rek da ngay jël mbir mi mu doon sa mbiru bop mais bu nekké mbiru ministère du commerce kessé bo moytu li ñu bëgg du soti waye buñ ko défé suñu mbir ñun ñepp inshallah dinañ am luñu bëgg gis ngeen ni ci samedi bi woté nañ fi ndaje ak euh, délégué yi pour ñoom it ñu japp ci liggéey bi gis ngeen taxaway aussi association de consommateurs yi euh, bu ci ñepp jappé rek inshallah je pense dinañu réussir paris bi